jërëjëf maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di euh, tàmbale samay kàddu ci asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifatul am li tariqatil muridiyya mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. Euh, ñaan noonu nañu jaar ñaanal mbooleem njabootu Sëñ Tuubaa yëpp di sant di gërëm ci turu association des commercant et industriels du Sénégal ACIS. ci turu le président Fallou Gallas Xumma ak mboolem bureau exécutif bi yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol waa Muqaddamatul Xidma ci njur sëñ Abdou Lahad Bousso ak mboolem ñi ngànk liggéey bi yëpp. liggéey bi di liggéey bu rëy rëy comme ni nga ko waxee liggéey boo xam ne yàlla defal nañu sutura ba ñun commerçant yi ci ñu ko sosoon lañ bokk ci ñoom mooy Baye Moussa mbay mi nekk sama ginnaaw nekk suñu kilifa ak yeneen kilifa yi mu àndoo liggéey bi liggéey bi bañ koy ànd ak ñoom ñoom it ñu leen di ñaanal yàlla yàggal na fi loolu te wér ñu jàpp ne fii ci jumaa ji lu fi nit def ñun nga ko defal ak faneen fu ci jumaa ji mboolem liggéey Sëriñ Tuubaa yi rek jàpp nañ ne ñun commerçant yi Tuubaa yi lu fa nit def ci dërëm ñun nga ko defal ndax ñun la war kon bu ndikkee tey fekk lañ commencé woon ay at ci ginnaaw dikk fekk ko mu mel nii loolu ak cant gu yaatu yaatu lañ cay am waaye daf daf ñuy gën a soñu nag ñu war a gën a takkaat laxasaay yu baax a baax Euh, xam ne fii yéeg ci kanam fépp fu mu war a àgg ñun ñoo ko fa war a àggale te incha allah danañ ci gën a jaaju di gën a soññaat suñu membre yëpp yi nekk fii ci Touba ak partout ci Sénégal waaye partout dans le monde. béréb bi nag li tax mu am solo mooy ñaar dafi daje muy bi ci jiitu mooy joxe aw ñam ak tasaari xam-xam ndax dañuy dundal ruu yi ba pare dundal jëmm yi dundal ruu yi jiitu mooy xam-xam mi nga xam ne taxawaay bu am solo la am ci diine waaye am taxawaay bu am solo ci yoonu murit sëñ bi liggéey ci lu baree bari soññee ci lu baree bari bu waa Moukhaddamatoul bi amee yittey taxaw taxawaay bu mel noonu tey ñu doon waxtaane thème bu am solo muy université ban impact la war a mën am ci dëkk bi ci ëllëgu dëkk bi nekk lu am solo ñun ñii dañ ciy gis suñu bopp ci thème boobu noonu ndax dafa am liaison direct ak suñu liggéey. bu loolu jàllee tamit muy joxe ñam rawatina ci weeru koor nekk lu am solo loo xam ne dañuy gën a soññaat ñun en tant que ay yaxantukat ndax wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa xayru raziqin boo ko defee nag rawatina nga def ko ci koor loolu day gën a tee am solo waaye euh, moo waxaat faneen ne joxe ñam sax day day day waral nit ki dugg àjjana kon loolu nekk ab soññi boo xam ne wuy tamit taam ala hubbihi miskina waaye wa yatiman wa asira innama nut'imukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ba mu naan wa jan jan jannatan wa harira nga xam ne day tax a dugg àjjana kon kon loolu day waral ñu gën a soññaat suñu membre yi ñu gën a góorlu ci ci liggéey bi te it wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet na ba pare waaye nag doyut ndax lu fi nit def rek ñun la ko defal te liggéey bi suñu liggéey bopp la kon ñi ngi leen di sant bu baax a baax yéen waa Moukhaddamatoul Khidma cant koo xam ne am na tàmbali waaye amutub euh, amutub yemukaay ndax euh, liggéey bu mel nii euh, képp kuy murit war na la waaye rawatina ñun ñi ne ci dëkk bi di fi yaxantoo suñu wërsëg yëpp ñu euh, ñu warlul ko Sëñ Tuubaa kon yéen ñi ngi leen di sant cant goo xam ne ndax organisation mucc na ayib mucc na ayib lool ndax la nga daan gis faneen di ko yéem boo ñëwee fii day mel ne la nga gis fii sax moo gën a yéeme ci la nga daan gis kon ñu ngi ñuy ñaan yàlla dëgëral leen bari bépp naal bu ngeen ci am yàlla sottal ko lu kawe njort sax te xam nañ tàmbali rek la ci yéen li mu yéeme yéeme ab tàmbali rek la ci yéen euh, euh, euh, te tàmbali boobu incha allah day gën a jëm kanam rek ndax liggéey bi sëñ Tuubaa moom amul ginnaaw tànki kanam rek la am day gën a jëm kanam rek incha allah ñu fa yéene ko ànd ak yéen nag donte dem nañ ba kenn war a des ak yéen ci liggéey bi ñun lay doon incha allah te lépp lu ñu ci def rek xeeb nañ ko bëggu bëgguñoo xam sax nu mu toll ndax yéene ji ëpp na loolu te rus nañoo taxaw sax naan def nañ ci nàngam ak nangam ndax dañoo jàpp ne lu fi dërëm bu fi nit def ñun la ko defal ku fi def milliard eh, ñun ko defal bu dee dërëm la naw eh, eh, xeeb nañ ko waaye bu dee milliard it ko kon ñuy santaat waa Moukhaddamatoul Khidma bu baax a baax di sa sant mbooleem ñun àndal ci 36 marché yëpp ku nekk am na ndaw lu fa jóge ñëw xat-xati jamono moo tax waaye mbooloo mi sax mënoon naa gën a ndax yéene yi ëpp na ko waaye ñu ci bari dañuy dañuy teewal teewal da leen di gënal teew bu ko defee rek dañuy bàyyi ñu jiite mbooloo mi rek teewal leen mooy tax waaye ñu ngi santaat bu baax a baax di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di di sant bu baax ci teewaay bi di sant yàlla d'abord di julli ci yeneenti bi di sant suñu président sëñ Fallou ak suñu présidente soxna Yacine Diop mii ma taxawal. di rafet lu bu baax euh, daayira bi nga xamante ni bii ñooñu invité fii ci ndogu yi di rafetlu liggéey bi bu baax a baax di soññ tamit suñu mbokk yu Aziz. nga xam ne délégation bi waroon na ëpp lii waaye euh, nii la ko yàlla bëggee te jot moo xaw kii rek waaye délégation bi ëppoon na lii. bu ñu ñëwee tamit gis nañ fi loo xamee kawe na suñu njort wax dëgg yàlla dalal ngeen ñu ndogu yi macha allah njóobeen bi kontaan na si wax dëgg yàlla dara manqué wul. xanaa di soññi sama bopp di soññi sama mbokk jul jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk Femme Aziz kenn ku ci nekk ñu jël sa gën a def si yitte si si si sa taxawaay si jumaa ji ndax am na solo. di rafetlu bu baax a baax a baax bi ñi fi teew suñu góor ñi di rafetlu bu baax seen teewaay di sant euh, ñëpp di gërëm ñëpp wax moo xaw a metti rek waaye ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax macha allah jërë ngeen jëf.